تركت ما كان لي ببي مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم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 mbokk yi bàyyi xel groupe communication UCAB rawatina seen naafilay bés bi nga xam ne ña ngi ko jukkee ci oratul ayni bi Serigne Chouaïbou Mbacke yal yàlla yokk ko yërmande amin mbokk yi ñu dikk ak ci guddik ñaar fukkeel ga ak juróom ku ci julli juróom ñetti raka raka bu ne ginnaaw faatiha mu jàng qul huwallahu ahad yoon kon guddi ñaar fukkeel gi ak juróom sopp nañ ko ci julli juróom ñetti rakka rakka bu ci ne ginnaaw faatiha day jàng xul huwallaahu ahad ñeenti yoon mbokk yi képp koo xam ne taxawe nga julli googu li làmbaayoo ci ay xiiwal ak i njariñ bari na lool bala moo jóge fa doon ko jullee des na ko jéggal bàkkaaram yépp te yàlla du ko mbugal mukk kon mbokk yi guddi la goo xam ne gu jara taxawe la bariwut te la ci nekk ci ay tuyaaba bari na lool te jullit bu nekk li muy ñaan suñ boroom saa su nekk rek mooy suñ boroom musal ko ci mbugalam yal na nu yàlla àtte ci yërmandeem wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون